أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن العجب والرياء والأخلاق المذمومة جمعاء بسم الله الرحمن الرحيم hamdan liman akmala yowma arafa diina nabiil mustafa wa sharafa musalliyan ala mujaabi daawa man lam yazal lil asfiyaai xudwa sayidina muhammadin xabibina shafiina muriithina tabibina wal aali wa saxbi alladina axadu maa xad ataa bihi wa xayran imbadu wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabih wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu nuyub julit ak mbokkam nuyub taalibe mbokkum taalibem te moo di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw ba nu sante borom bi subhaanahu wa taala nin ko baaxoo di julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam ni nu ko yàlla sant ci alquranul karim di yeesal sunu njëbbal ak sunu jaayante ci Serigne Touba radiyallahu anhu wa nafaana bi barakaati di ñaanal ki fi jekkee ab jotaayam muy Cheikh Sidil Muxtaar borom bi dolli ko yàggal te wéral ko ba naalam yu rëy yi ak yéeneem yu am solo yi mu def ko nam ko bëgge waaye nun taalibe itam nu maase ànd ak moom di ko ñaanal kilifa yi dina yëpp ak fu nu mën a nekk di leen ziyaare bu baax ci bis bu tedd bii ci weer yu tedd yi nga xam ne mooy weeri weeri aj Makka nu dellu seeti ci waxtaan yi nga xam ne baaxoo nan ko bala ñoo jooxe waxtu wi bu nu bàyyee xel lu mat ñetti ajjuma ca wàlla noo ngi doon waxtaane aj màkka tey nara nekki kon ñeenteelu ajjuma itam boo xam ne dañuy delluwaat di wax ci aj màkka rek te noonu lañ ko fas yéenee jàppe ba beneen xew-xew bu ko gën a jàmp nga xam ne moom lañ gën a soxla su ko defee ñu tegandi ko wax ca loole waaye amul genn jaamu yàlla goo xam ne mën nañ koo jël diir ba ñu koy waajalee ñu wax ko ca ba lañ ca war a wax lépp jeex moo tax kon li may wax tey dama koy sof ca loolee ca ñetti ajjuma yële jàll nga xam ne ci aj màkka la ñu nekkoon da dañ ko cay daal di delloo waaye mi ngi doon kayfiyatul xajji gannaaw ba nu leeralee lu bare bari tey moom waxtaan wi mooy nan la ñuy aje màkka nuñ koy jëfe gannaaw ba ñu leeralee lu bare bari ca ponk ya su ma bëggee waxtaane euh, ki bàyyikoo ci réew mi di aji màkka ni koy defee day doon ay tomb yu xaw a takku bokk na ci bi may njëkk a leeral mooy yàlla dogal na am nga yéene dem ren ana noo war a waajale gannaaw ba nga bindoo ba àggal nga xam ne fi ne dara desewu la lul xaar bis bañ la àppal ak waajtaay waak sa génn sa kër loolu mooy tomb bu njëkk bi ñaareel bi aadabu ziyaara arawda asharifa bu yàlla dogalee nga àgg ca dëkk bu sell ba nga xam ne boo bàyyi ko ci réew mi yaa ngi wàcc madinatu munawar ana nooy siyaare jee barab bu ku tedd ka di sallallahu alayhi wa sallam ñetteel bi al ihraamu wa aadabuhu wa kayfiyatuhu thumma al xuruju ila biiri ali gannaaw ba nga ziyaare barab bu tedd ba ziyaare ay saxaabaam ziyaare place yu tedd yenn ca barab boobee toog nag ba bis bi nga war a armal nag ngir dem biiru ali jege fa war a dem màkka ñeenteel bi nekk al iqaamatu fi màkkatil mukarramati fi màkkatal mukarramati wa tawaaful xudóomi gannaaw ba nga armalee ba àggal soo demee màkka noo war a nekkee màkka te mooy wër ba nga war a wër kaaba ga pour ziyaare ko loolu mooy ñeenteel bi juróomeel bi nag alxuruju ila minan yowmu tarwiya bis bi nga war a génn nag màkka dem minan te mooy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci tabaski loolu itam ñu ñëw ci defin waag ya ca aju juróom-benneel ba taxawaayu Arafat ak fanaan Musdalifa jóge Musdalifa ñëw Minan jóge Minan ñëw Màkka loolu itam lu ñu koy defee ak teggin ya ba fa ba fa séenee wër wërub farata bi muy tawaaful ifaada juróom-ñaareel bi mooy sànni jamara nag tabaski ba ca suba sa tabaski ba ca gannaaw suba sa tabaski ba ca gannaawaat suba sa loolu mooy juróom-ñaareel bi juróom-ñetteel bi nag mooy bu yàlla dogalee sa mbir mat ba nga ñibbisi ya ca aju ak islaam yi mu la sant ci xëy na boo ñëwee mu bëgg nga doore ko loolu mooy nekk euh, juróom-ñetteel bi kon yii leen fas yéene waxtaane subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim Euh, li ñuy njëkk mooy bu yàlla dogalee nga jekk nag ba fas nee dem ren lala war mooy lépp luy tax yéwén saw yoon nga nekk ca waaye jël lépp nag jëbal ko yàlla comme dogu nga ngir dem waajal sa waajtaay te jëbal lépp yàlla fa ida azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin ca sorotu Ali Imran euh, bis boo xamee ne bis bi nga war a génn sa kër nag ngir dem nga daal jàpp ba sell dugg sa biir néeg julli ñaari rakka boo ma nee sax rakk bu njëkk ba nga tari ca fatiha xul yaa ayyuhal kaafiruuna ñaaleelu rakk ba fatiha xul huwallaahu ahad teewlu tàllal say loxo ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal la tawféex wuutu la ci sa njaboot ànd ak yow ci tukki bi ba noppi jiitu la màgg la nga fa nar a def yëpp mu nangul la ko ba noppi delloosiwaat la ci sa kër ak sa njaboot ci jàmm nga mucc dara rabañ laa jot loolu bokk na ci waajtaay bi kon booy génn nga julli ñaar rakk fas yéene ñaan yàlla jàmm euh, bu ko defee nga tàggu sa waa kër ña nga war a tàggu tàggu say bokk ak say dëkkandoor daal fas yéene génn wax nañ ne sax bokk na ci li ñu sopp bala ngaa génn sa kër nga jàng ayatul kursi ak inna anzalnaahu fii laylatil qadr boo amee looy saraxe itam nga saraxe daal di génn sa kër daal di wàkkir lépp yàlla bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa la daal di génn nag euh, kon nii ngay génn sa biir kër bu yàlla dogalee nga jaar fa ngay jaar ba àgg ca barab yu tedd yooyu muy madina munawar ndax boo bàyyi ko ci réew mi madina nga jëm boo dalloo nu mu gën a gaawee profitool nga siyaare ji sallallahu alayhi wa ndax siyaare ko dafa bokk ci xeeti jaamu yi gën a rëy waaye ëpp ci solo yonent bi soññee na ci ñaaxe ci am na foo xam ne mujaahid moo ko nettali jële ci ibnu omar mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man xajja fa zaara qabri baada mawti kaana kaman zaarani fi xayaati képp ku aji màkka fekk ma ba fa ma tëdd nga ziyaare ma mel nga ni koo xam ne jamono ba may dund nga ma seet si muy lu am solo nee na loolu moom wuute wut ak ba may dund nga do nga nga euh, paasoon fekk ma ma dina may dund nga jox ma say loxo ziyaar ma ma ñaana la boo ñëwee sama barab gannaaw ba ma faatoo itam benn la kon lu am solo la léegi nag boo bëggee ziyaare barab ba doo tëb tëb rek dem ca barab ba da ngay jaar ca jàkka ja jàkka yi saa salaam fa mu daa jullee waxtu juróom moom ak i booy dugg nga jiital sa tànku ndeyjoor wax la nga daa wax boo daa dugg ci ci jàkka yi ak jumaa yi nekk sama réew bismillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma agfir li dunubi waftax li abwaaba rahmatika jiital sa tànk ndeyjoor boo duggee ca jàkka yonent ba bu fekkee da nga faa duggoon ay waxtu suba tombeek ñu taxawal julli suba mu julli farata àndal ak ñoom julli julli farata bu dee digg bëccëg ñuy julli tisbaar àndal ak ñoom julli tisbaar bu dee ca ngoon ga la ñu nekk ci tàkkusaan àndal ak ñoom julli tàkkusaan bu dee ba jant bay so ñu nekk ca timis àndal ak ñoom julli timis ca jàkk yenant ba bu dee guddi nga fa ñëw ñu julligee àndal ak ñoom julligee bu yàlla dogalee nag nga ñëw fa waxtu woo xam ne du waxtu julli farat su boobaa xam nga nooy def danga naan diis àndu ci wet julli ñaari rakka def ko tahiyatul masjid nuyoo ko jàkk ja euh, boo jullee sa ñaari rakka te ñaari rakka yooyu ngay julli nag soo ma nee mu jege minbaru yonent ba na ko jege lu dul ne boo ko naree def jombul danga nga gaañ kenn baa ñu gaañ la su boobaa foo taxaw baax na nga julli sa ñaar rakka ndax jege minbar ba am na solo li tax ñu taamu jege ko yonent bi daa waxoon ne maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna diggante sama kër ak sama minbar daa bokk ci dëri àjjana yi te mooy barab ci barabi àjjana yi moo tax jege ko bu jàpp ne am na solo soo jullee sa ñaar ba àggal nga daal di jublu nag barab bu tedd ba nag fas yéene ji ziyaar yi sallallahu alayhi soo àggee nga nuyu ko soo koy nuyu boo ko waxee asalaamu aleyka yaa rasulallahi doy na sëkk soo ko waxee doy na sëkk bu la neexee ne ko asalaamu aleyka yaa rasulallah asalaamu aleyka yaa nabiyallah asalaamu aleyka yaa xirata xalqillah sallallahu aleyka wa ala alika wa azwajika wa zuriyatika ajmain bu la neexee nga nuyu ko ñaanal ko ñaanal waa këram ñaanal ak njabootam waaye ñaanal itam ay sahaabam Euh, te boo ko nuyoo amal yaqin mooy ne sa xel dal na yonent bi fay na ma ku ko nuyu mu fay la rafetal njort ne man dey nuyu naa ko waaye fay na ma ndax euh, abu hurayra dafa net benn xadis mu ne yonent bi nee na ma min ahadin yusallimu alayya ila radda allahu alayya ruuxi xata arudda alayhi salaam bi nee na amul kenn koo xam ne di nga ñëw ci sama barab fa ma tëdd nga ne ma asalaamaaleykum lu dul ne suñu borom dina ma delloo sama ruux ba ma ba ma fay la kon am na solo saa boo ko nuyoo rek fay na la ndax loolu suñu borom moo mooy daal di delloo ruuxam mu daal di lay fay yow mi ko nuyu kon nuyu ko te ñaanal say jur ñaanal say euh, say lay jullit ku la battale woon ne la nag ma nuyul sallallahu alayhi wa sallam nee ko diw ca samam réew moo ngi lay nuyu ndax ni mu la fayee dana ko di fayee kon mën ngaa ñàkk bañ a dem te yóbbante sa nuyoo ci ku la jege tey dem bis bu àggee bu la ko jottalilee rek yeneen bi saa salaam itam day wax sa mbokk mu ne ko fay naa ko muy lu am solo waaye doonu yiw itam léegi nag nuyu nga ko moom yeneen bi saa salaam bul ne pare naa de moo ma fi indi woon déedéet dandul tuuti ci sa nday ndeyjoor luy tolloog luy tolloog maître daa am ku tëdd foofu te bokk ci ay saxaabam muy Abu Bakrin ñooñu kat du ñu leen fàtte de bu ñu demee ci njàngaleem Serigne Touba dinañuy faral di xiir ci ñoom lu bare baree bari ayaa xaadimal muxtaari la tansa sahbahu fa man yansahum fal madhu madun muqattaun kon ñooñu kenn du leen fàtte moo tax boo siyaaree yonent bi doone maa ngi dem déedéet àndul ca sa ndeyjoor luy tollook maître Abu Bakar moo tëdd foofu nga nuyu ko bu la neexee nga ne ko asalaamu aleyka ya yaa Aba Bakr asalaamu aleyka yaa as-Siddiq boo waxee loolu doy na sëkk boo ne asalaamaaleykum Ababacar doy na bu la neexee tam nga gën a guddal sab nuyoo ba tey baax na asalaamaaleykum Ababakarin as-Siddiq safiya rasulillah wa saahibahu fil ghaar jazakallahu an ummati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xayran nga nuyu ko ñaanal ko ne ko yow day yaa nekkoon ku selluk yenent ba sallallahu alayhi wa sallam yaa ko wéttali woon te xuntum a nga xam ne ku fa wéetoon la yow de yal na la yàlla fay aw yiw nga ñaanal ko ko soo da nga naan diisaat ci sa wàllu ndeyjoor luy tollaat luy tolloog maître ba tey daa amaat keneen ko fa tëdd muy Omar Seydina Omar nga nuyu ko moom itam bu la neexee nga ne ko asalaamualeyka yaa Omarul Faaruux bu la neexee asalaamualeyka ya Omar doy na sëkk bu la neexee tam nga jàll asalaamualeyka yaa Omarul Faaruux wa rahmatullahi wa barakaatu jazakallahu an ummati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xayran maa ngi lay nuyu Omar ba noppi di la ñaanal. suñ borom defal la yërmande te fay la aw yiw boo àggalee nag dangay daal di dëlsi sa daluwaay nga toog bu fekkee nar nga faa ami fan nga def loolu ñu tuddee kul ziar dem ci barab yi sell yi nga xam ne yonent ba daana fa dem di ko siyaare ji nga ziare ji ko barab yi mu daa toog nga dem fa barab yi nga xam ne dafa daan julli nga dem fa yépp ngir baaxental moo tax demal armeel yi baqiyan te mooy yi Madina yi nga xam ne moom lañ duppee bu yàgguloo mbay euh, armeel yi nga xam ne moo nekk Touba nga xam ne kon arméel yi Madina a war di arméel yi nga xam ne saxaaba yu bare bare bare ña nga fa tëdd arméel yooyu nga dem fa ma nga nekk Madina nga xam ne arméel la yoo xam ne saxaaba yu bare nga fa tëdd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay bokki boppam ña nga fa tëdd ay soppeem ña nga fa tëdd guddi gu jot dafa daa dem moom ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam daan leen ñaanal moo tax dem fa boo demee nga ñaanal leen suñu yaay Aïcha nee na yéen saa salaam dafa daa dem daan leen ñaanal ñoom ñu tëdd ca barab yooyee di leen ñaanal suñu borom gannaaw ba mu leen nuyoo mu defal leen ak njëgal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa baqiul gharqad nga xam ne xëy na garab gu fa nekkoon ba mu bañ jëlee woon ko fa garab googu moom lañ koy dàkkentale naan baqiul gharqad boo ca jógee bëgg nañ nga dem seeti ña daan woon ca toolub xareb Uhud ba nga xam ne fa lañ leen denc nga dem ca Uhud seeti leen ndax jëm ñu Uhud waxuma la ña fa tëdd rek waaye aw doj la woo xam ne doj wu am solo la doj wu am worma doj woo xam ne yeneent bi daana wax ne jabalun min jan na doj la ci doji ajana yi daane wax itam ne jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu Uhud aw doj la woo xam ne dañoo bëgg ñun jullit ñi ñun itam bëgg nañ ko soo fa jógee nga dem masjidu Quba mu jàkka ju am solo joo xam ne yenent bi fonkoon na ko nee nañ gaaw bu nekk dafa daa dem bu demee lenn képp ko fa yóbbu julli fa ñaari ràkka waññeekuwaat ñibbisi te diggante xubaa ak madina sori na waaye jaraloon na ko ko kon loolu am na solo yow mi dem ca barab yooyee àggal foofe daal di fay julli ay ràkka ni ko yenent saa sallam defee woon ngir ngir baaxental boo defee say kulu ziar ba mat nga dellusiwaat ci sa daluwaay yëpp yaa ngi madina lépp yaa ngi madina a war ak barab ya ko ya ko wër lu ci des nag al ihraamu wa aadaabuhu thumma al xuruju ila biiri ali fas yéenee armal ak ay tegginam dem biiru ali da ngaa fas yéenee armal nag boo déggee armal rek dañ naan la yaa ngi bëgg dem màkk fi ne li nga nekk madina yëpp sa yére yi nga doon sol fii ci biir réew mi moom nga doon sol di wër di def say ziar waaye yaa ngi bëgg a dem màkk nag kooku moom danga koy waajal ana noo koy waajale li ngay def mooy boo déggee armal mooy kuy bëgg a dugg ci benn ci ñaari xeeti jaamu yi mbaa mu nar leen a boole te mooy daa bëgg aj képp wala daa bëgg a umra képp wala dafa bëgg boole aj ak umra kooku lañ naan armal commencé ci dindi say ñugu-ñugu euh, bokk na ca fexe ba luy tilim tilim ci yow nga dindi ko leeli say we jemp say naanu wat say naanu jemp sa karaw yu poqutaan ak sa naq ba noppi peñe sa karaw ba mu àndandoo ak sa karaw bopp ak sikkim ak yëpp ba noppi sangu daal di jàpp te sangu mi ak jàpp mi nag ñëpp a ci yem jigéen gi nga xam ne dafa toll ci gis baaxub jigéen nga xam ne jamono boobu ma ngi koy gis te war a aj du tee day sangu jàpp ki amee gësin ni tamit dana sangu jàpp ndaxte loolu mooy sunna amee baax mbaa amee gësin teewu ko teewut sangu liñ koy tere mooy julli rek ak wër kaaba gi waaye li nit ñi def da koy def mën ngaa sangoo itam jàppe ci sa daluwaay soo demee biiru ali nga xam ne julli rek nga fay def bu la neexee tam nga àgg ba foofee sangu loo ca def baax na euh, boo sangoon nag ba àggal looy def sol séri armal séri armal nag ñaari séri képp lay doon benn bi danga koy terexlaayoo li li tàmbalee sa jumbax mu wàcc ba ci suuf bi ci des nga daal di koy làmboo li tàmbalee say mbagg mu wàcc fekk si bi ci des loolu mooy série armal sopp nañ nag mu weex bu weexee moo gën bu dee jigéen moom yére yi daa sol rek lay sol góor moom lañ sa sartal loolu waaye bu dee jigéen moom lam daa sol lay sol lu dul ne muuraale boppam itam na ko daa defe xar kanamam képp ak ay tenqoom la ñuy tere mu muur ko du saña muur xarkanam ba du sañ muur tenqo yi bu dee jigéen léegi nag nga daal di jublu biiru ali wala zul fa nga xam ne benn la soo demee nga julli fa ñaari rakka moo tax boo armalee rek dangay ngay daal di julli ñaar rakk sol nga say sër ñaar rakk rakk bu njëkk ba fatiha xul yaa ayyuhal kaafiruun ñaareel ba fatiha xul huwa allahu ahad nga daal di yéene ci saw làmmiñ wax nga yéene ci sa xol wax ci sa làmmiñ ne dama bëgg def benn ci aj yi mooy yaay tànn ñetti façon ajiin moo am nga tànn ci yow bi nga gën a jekk wala bi nga jàpp ne xëy na danga ko mën a def bu la neexee nga ne damay aj kese aj kese laay def loolu ñu tudde al ifraad kon danga naan nawaytul xajja allahuma yasirhu lii wa taqabbalhu la labayka bi xajjin yow sunu borom man de damaa fas yéenee aj kepp yombalal ma ko nag te nangul ma ko kon ñëw naa fii ajama indi ku wax lii nag nga xam ne programme bii la jël bis bu xasee sol ay sërëm ba armal sér yooyu day nekk ak moom nekk ak moom nekk moom ba aj gi jeex takk mu koy door a bi bisu tabaski bi lay lay sañee si dindi ko comme dane moom day aj kese su ko defee su paasee mu dem masjidu Aïcha armal foofu def umra bu ko neexee bu fekkee danga ne man damay def damay umra umra lay def umra kese lay def sañ nga ko loolu la ñuy tuddee atamaton loolu dangay yéene ko ne nawaytul umra allahuma yazir xaali wa taqabalha min ni labayka bi umratin yow sunu borom man li ma yéene mooy damaa fas yéene umra yombalal ma liggéey bi ci aju te nangul ma ko itam kon ñëw naa damay umra lii nag moom moo gën a kii boo jëlee tamaton kon soo soo jógee sa sa miixa mooy fi nga armale boo demee Makka soo wëree Kaaba ga daw Safa ak Marwa da ngay simmeeku dindi say sër sol yére yi nga doon sol ci réew mi di dox tereetuñ la dara bu fa soxna ne kese ngay jaxasoog sañ ngaa def yu bare bari yu ñu lay teree ndax lan da ngaa def tamaton kooku da ngay bànneexu ci lu ñuy tere ñeneen yow kenn du la ko tere kon boo jëlee bi boo ne damay umra kepp bis boo demee bis boo wëree kaaba gi daw safa ak marwa sañ ngaa dindi say seer sol yi nga doon sol fii bañ ne nag tey la juróom-ñetti fan ciw tabaski nga duggaat sa néeg sangu farata jàpp armal jëlaat sa ñaari sër lamboo dem mi nan nag pour war a jóge foofu waajal sa taxawaayu arafat ba noppi itam da nga rey ab gàtt bisu tabaski bi da nga rey xad yu gàtt boo xam ne xad yu lay tudd ndax borom bi ma wax ne faman tata faman tamattaa bil umrati ila al xajj fa mastaysara min al xadyi fa man lam yajid fa siyaamu thalaasati ayaamin fi lxajji wa sabaatin ida rajaatum tilka asharatun kaamila dalika liman lam yaku ahluhu xaadiri lmasjidi lxaram nee na daal ku armal ngir ngir omra te mooy tamaton da nga rey xadiyu soo amul loo jënd gàtt pour lewetal ko nga woor ñetti fan jamono bi nga armalee nekk màkka boo delloo sam réew nga woor juróom-ñaari fan soo ko boolee muy fukk loolu nag ku dëkkut màkka moom la ñu wax waaye kooku moom sañuta euh, du ko ca defante tamaton sax moo ko ci fekk ba lii da ko ca fekk te sooratul baqara li tax ñu tudde ko tamaton nag mooy yow da ngay sañ def lu baree bari lu ñuy tere ñeete te yow yow rek yaa ko sañ sañ faa lelli say sañ faa watu sañ def yu baree bari sañ a laal parfum te ñeneen ñi duñ duñ ko sañ ki jël tamaton bànneexu gi mi bànneexu moo tax ñu tuddee ko ko bu la neexee nga ne dama leen di boole damay boole aj ak umra loolu la ñu tuddee alqiraanu kon da naan yow sunu borom damaa ñëw fii ngir aj ak umra dama leen a fës yéenee boole yombalal ma ko te nangul ma ko wuy naa la ngir aj umratam nawaytul xajja wal umrata allahuma yasir huma lii wa taqabal huma minni labayka bi xajjin wa umratin boo boo leen boolee nag yow itam ku njëkk kam ma njëkkoon a tudd te mooy kane day aj yéen a yem yow boo xasee sol say sër doo ko simmi doo ko simmi doo ko simmi ba aj gi jeex takk te mooy bisu tabaski bi nga sànni jamra watu def la ngay def ba noppi danga nga gàtt kon ku koo xam ne dafa tànn ne day boole aj ak umra day rey gàtt kii def ifraat ki ne moom damay aj kese kooku moom du rey gàtt sant ñu ko benn gàtt bu muy rendi lu dul ne amul mu def ñu alamaan ko ne ko teg ko ay daan waaye lu dul loolu moom dara du ko ca war lépp daga na nag ci xadis suñu yaay Aysa suñu yaay Aysa nee na yenent bi ajam gu mujj am na ñoo xam ne dañoo tànnoon pour aj képp am ñoo xam ne dañoo tànnoon pour pour umra képp am ñoo xam ne dañoo tànnoon pour boole leen ñoom ñaar yenent bi nag moom li mu tànnoon moom moom dane damay aj moom aj la tànnoon su ko defee ki tànnoon ne damay umra kooku su wëree kaaba gi daw safa ak marwa day daal di simmeeku tereetuñ ko dara ba juróom-ñetti fan ciw tabaski jot waaye ki ne woon man damay aj ak ki ne woon dama leen di boole kooku moom të kooku moom su dawee safa ak marwa gannaaw ba mu wëree kaaba gi du simmeeku ñaari sër yim làmboon moom lay làmboo ba aj gi jeex noonu la ko nettalee ci benn xadis xadis bu am solo xaraj naa maa rasulillahi salaa sallam ama xajatil wadaa fa minna man axala bi umratin wa minna man axala bi xajjin wa umratin wa minna man axala bi xajjin wa axala rasulullahi salaa sallam bil xajji wa amma man axala bi umratin fa xalla inda xudumihi wa amma man axala bi xajjin aw xajja aw jamaa al xajja wal umrata fa lam yaxillu xata kaana yowman naxr muy lu am solo kon armal nga tànn nga benn ci ñaari yi mbaa nga boole leen aja am ak umra yow nag bu la neexee nga nga ne damay aj mbaa damay umra mbaa dama leen di boole kon ñetti façon nga mën a def nga daal di tàmbali yëkkati say baat gannaaw ba nga armalee labayka allahuma labayk labayka laa sharika laka labayk inna alhamda wa niamata lak wal mulku laa sharika lak bëgg nañ saa boo waxee ay labayka ba sonn mbaa nga bëgg a nelaw mbaa nga am looy def bay nar a taxaw bul taxaw ñaanal te jeexale ko julli ci yonent bi saa salaam saa booy jeexal sa labayka rek tëje ko salaatu ala nabi léegi nag ginnaaw danga war a dem màkk nag armal nga màkk nga war a jëm am na yu bari yu ñu la tere nag bi nga xasee armal tere nañ la yu bari sañatoo jaxasoo ak sa soxna sañatoo def dara luy jiitu jaxasoo ba mbaa ngay waxtaan waxtaan woo xam ne waxtaanu jaxasoo diggante góor a jigéen la mbaa ngay liir ay mbind yoo xam ne mën na laa xiirtal ci mbirum jaxasoo dañ koy tere sol ñu ñëw dañ koy tere ñaari sér yooyu dara du la topp lu dul moom sañoo faa sol mbaxana ndax dañ koo ñëw sañoo faa sol dàll lu dul dàllu carax waaye sañoo faa sol ay sër nga xam ne ay mbubb la yu ñëw lu dul ñaari sër yi lay topp dañ lay tere nga lewi say we lu dul ngànt xëy na bu daggoon ba nga xam ne lii moom da yaa ngi ciy gaañu saa su nekk may nañ la nga dindi ko ndax diine lu yomb la waaye lu dul loolu moom sañoo leeli say we naka noonu sañoo faa def bàkkaar di fa xuloo ak a dañ koy tere gëtt itam doo ko fa laal ci say sër mbaa saw yaram sa bopp itam doo ko muur bu dee góor a sañoo jël kol teg ko sa bopp mbaa mbaxana na mbaa leneen da nga koy bàyyi noonu sañoo faa sol loo xam ne sax xet ga dafa neex nga soloon sér yoo xam ne niñ ko liggéeyaale xet ga day xaw a xeeñ lu neex dañ koy tere sañoo faa fasu sëy fañoo euh, sañoo faa xutba te itam yow itam kenn du la may soxna jamono boo nekkee ci barab yooyu du wér sañoo ko may kenn sa sañoo itam ñu may la ko tey tamit doo ko fa xutba loolu moo wér ci mën nañ ne ñetti ngir yëpp ngiru imaam Shaafi ngiru imaam Ahmad ak ngiru imaam Malik ba noppi itam euh, doo fa rey aw rab aw rab rey dara luy dox ndax borom bi moo nu wax ne yaa ayyuha alladina amanu laa taqtulu sayda wa antum xurumun képp ku xas armal sañatoo faa rey dara loo xam ne aw rëbb la waaye bu fa géej jegee nag sañ ngaa dem napp am fa ay jën mbaa loo jëlee ca ca géej ga waaye kaw suuf si daal lañ la tere nga jàpp dara uxilla lakum saydul bahri wa taamuhu mataan lakum wa lisayaara wa xurima aleykum saydul barri maa dumtum maa dumtum xurum nee na daal sañ ngaa dem ca géej ga ak lépp lu fa nekk nga xam ne ñam wane ca biir ay jën ak xeet yu mel noon nga jàpp man koo xéwloo mën ko defub yóbbal itam wali sayaara ñi nga xam ne dañuy tukki ñu mën ko def mu nekk yóbbal waaye araamal nañ ci yéen nga armal ba noppi am luy dox ci kaw suuf moo xam ngannaaw moo xam dara nga di ko rey te ku ko def danañ la teg ay daan yii ma wax nag ku juum ba def ci benn mbaa benn dàll la ci ana daanu gi lay teg ñetti daan lañu lay teg danga nga reyab gàtt soo ko amut ñu ne la wooral ñetti fan soo ko munut ñu ne la leelal juróom benn nit aw ñam ba mu des jaxasoo ak soxna loolu moom day yàq aj ba noppi rey aw rëbb itam loolu kenn du ko remplacer def lale lu dul seet lu toll noonee comme ci misaal boo fa rayoon euh, aw nag ci misaal lu xaw a xeetoog moom comme da jël boo fa rayoon kooba comme ci misaal kooba nga xam ne ci rabi àll yi la xaw a mel ni nag kon lu mel ni moom ngay ngay ngay jëfandikoo mu mën koo defar te mooy nag noo ngi woon ak yéen Euh, yi nga xam ne jullit bi armal na ba àggal nu tere ko ko ak bu ko defee lañ koy teg ci daan waaye am na yeneen nag yu dagan nag yoo xam ne may nañ ko ko comme ay sangu saa boo yégee aw tilim saw yaram baa nga xaw a tàng sañ ngaa sangu wala ngay sangu pour juma wala janaba ak xeet yu mel noonu yëpp yooyu yëpp dagan na dem ci kër itam ngir kerlu may nañ la ko takk jaaro wala montre wala xeet yooyu man dagan na naka noonu euh, xeet gu ne xeeñ la fa laal la ko ci say sër la ñuy bañ waaye bu la xeeñee kooku amul benn solo naka noonu itam lu ñu la tere xëy na buñ la ko teree bu ngante amee dëgg-dëgg sa bëñ mën na metti nga nga foq ko mu dañ wala sawee xaw a nga gaañu ci muy lang metti ak luñ koy tere tere su boobaa day daal di dagan nga dindi ko ndax metti du mën a mën a dakk ak wokkut itam dara mën nay xesen saw yaram nga ngay wokkook yooyu yëpp dagan na te loolu ñoo ngi ko tegtaloo ci hadis boo xam ne imam Malik moo ko nettali ci Muwatta mu ne suñu yaay Aïcha bañ ko laajee ne ko ndax ki armal sañ naa wokkutu dane waaw waaw sañ naa wokkutu ba la koy metti dañ na wokk bu baax a baax ba fay xesen xesen ga dañ lu dul ne bopp daal lañ xaw a mu di ko wokk wokk yu metti ndax karaw mën naa ruus te su boobaa ko xas armal bëgguñu sa karaw dañ bëgguñu sa dara dañ kon bu dee bopp ba daal xëy na mu teey ci def ndànk ndax bu ko wokkee baax rek karaw mën na koo topp te dañ koy dañ koy bañ am lu ko cay fekk euh, sañ ngaa rey itam juróomi rab yi lañ la may xam nga dañoo wax ne sañoo rey rab ba mu des juróom yi te mooy Euh, lu mel ni baaxaañ ndax ñoom da dañuy lore ay ay ceeli jiit jinax nga xam ne jombul mën naa yàq foofa dara wala ab dawkat boo xamante ni ni day tiitalaate ak fitnaalaate kooku bu ñu ko fa jekkoo mënees na koo fàtt bokk na ci yi nga xam ne may nañ ko ujaaj bi mu faat ko gannaaw bu armale ba àggal ci ci boo xam ne yéen saa la moo ko wax euh, bu ko defee léegi ah nga daal di dugg nag màkka armal nga màkka nga jëm si bi nga ñëwee ba mu wóor la dëkk bi may seen mooy màkk da ñaan ñaanal sa soxla ñaanal say bokk ñaanal say way jur bu yàlla dogalee nga egsi ci sa daluwaay ba ne damay dem siyaare ji kaaba ga sa bët bi bu ne toq mooy bi nga ko njëkkee seen rek ñaanal ñaanal ndax sa saa boo gisee kaaba gi rek foofu yàlla day nangu ñaan bi nga xam ne bi nga nee xefeet rek xool yam ci moom rek foofu moom loo ñaan suñ borom def ko foofu barabu ñaan la nga ñaan su ko defee daal di jawali euh, fu xaw a làng ak xajarul aswad te mooy doj wu ñuul wa boo ko mënee laal bu jàppandee nga laal boo ko mënut euh, fóon sax moo gën bu bu fekkee jekku nga ko boo ko mënut boo ko mënee yootu laal su mënta nekk foo toll te xaw koo junj rek wala mu wóor ne fee lay xaw a tollool ndax mbooloo mu bari nga tàllal sa loxo am yéene yi ko ko kii tamit su boobaa day daal mat nga xam ne booy wër foofa ngay tàmbalee yaa ngi wër di wax di jàpp subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar di wër kaaba gi nga xam ne kaaba gi càmmooñ la lay fare ngay wër te booy wër bu njëkk bi sër bi nga tegoon ci sa kaw danga koy bokk ci sa ndeyjoor sa mbagg day feeñ booy wër wër bu njëkk bi sa mbagg daa war a feeñ bii du feeñ càmmoñ bi muur ko ndeyjoor bi mooy feeñ ngay wër soo wëree ba àggal juróom-ñaari yoon nga xam ne ñett yu njëkk yi da ngay xaw yokk say jéego xaw a waaxu waaxu xaw a dëgër ñeent yu mujj yi nga daal di dox ni nga daa doxee ci dal ak teey euh, saa boo gëlëmee te mooy boo booy juumee nga xam ne nga jàpp ne man matal naag matalu ma nga jàpp ne matul rek matul li ba keroog matal ndax sa xel mën naa fatu su ko defee boo egsee ci rukunul yamaan yi nga bañ a fàtte jàng ñaan bi rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar soo paree nag ba wër sa juróom-ñaari wër nga dem ci maqaamu ibrahim julli fa ñaari rakan rakk mu njëkk ba fatiha xul yal kaafiruuna bi jëles fatiha xul huwallahu ahad soo paree nga daal dem naan ndoxu zam-zam ndax ndox la moo xam ne yéen saa salaam nee na lu ci waay ñaan yàlla nangu ko ndox la moo xam ne boo koy naan loo ci fas mu fasu moo tax nee ñaanal ba am na ay ñaan yu ci rot sax allahuma inni asaluka ilman naafia wa rizqan waasia wa shifaan min kulli daa yàlla ndox mi may nan defal ma ci xam-xam bu am njariñ te defal ma ci wërsëg wu yaatu nag te lépp luy jàngoro sama yaram bi nag fanqal ma ko ci loolu des na ko yéene saa booy naan ndoxu sam-sam ci ay ñaan yoo xam ne rot na ca ba nga jógee foofu nag foo jam daw safa ak marwa soo àggee boo jubee safa nga nga jàng aaya bi inna safa wal marwata min sha'airillah a hajja al bayta aw fa man tatawaa xayran fahu fa inna allah shakirun alim nga daal di wax allahu akbar ñetti te yaa ngi ci kaw nga jublu penku daadi wax allahu akbar ñetti yoon soo ci mënee teg laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in xadir laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika la anjaza waada wa nasara abda wa hazama al ahsaabu waxda soo ko ci mënee teg nga teg ko ci soo ko munut boo nee allahu akbar ñetti yoon doy na sëkk nga yaa ngi ci kaw safaade nga ñaan ñaan loo bëgg ci yiw ñaanal ko say wayjur ñaanal ko say bokk daal di bàbbeeku nag fas yéene jëm marwa soo àggee ca kaw marwa moom itamit lii nga fay jàng rabbi xfir lii warxam wa tajawas amma taalamu innaka anta al aazul akram allahuma rabbana atina fi dunya xasana fi laxirati xasana waxina adaba naar ba sa juróom-ñaari mat su ko defee sa daw safa marwa daal di mat nga daal simmeeku bu dee danga doon def tamaton su ko defee ñeneen ña nag ñoom ñooy continuer des ak seen i sër ba aj jot ñu aji kon waxtaan wi euh, matuluwaay waxtu wee ñu dab dañuy taxaw foofu di balu ak ñëpp tey bal ñëpp ak wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.